yàlla dafa def tey ñu invité ma fii ma bég si kontaan si parce que lii dama ko yàkkamti woon pour wax ko parce que bët Sénégal ku nekk xam na ne suñu waajur fii lañ daan liggéeyee di dundal seen njaboot man liggéey naa fii sama génération sama mag yëpp liggéey nañ fii képp ka nga xamee ne yaa ngi doon liggéey bët senegal rek yaa ngi toog torox nga parce que injustice moo fi am injustice boo xam ne fu nekk yuuxoo nan ko fa parce tool bu mel nii xam ne loo fi def mu nangu amul lu mu nanguwul su karoot lu nekk lañ fi daan def soble melon euh, pastèque amul lu manqué fii luñ fi daa laawul bay te léegi xoolal sunu jaaykat yi nekk jam ñaajo par exemple tey euh, produit Maroc la ñuy jënd et que pourtant produit boobu war naa mën a joge fii war naa mën a joge fii ñu dem di ko jaay sunuy sunuy njaboot di si dund sunu mag yi ñëw fii di liggéey parce que mag yi mag yi màgget nii dañ daan ñëw ak seen yet sax ñëw di liggéey fii seen i njaboot a ngi fi mën nañu leen na remplacer jël li ñu moomoon ñëw taxaw mais loolu amul xoola deeni maa liggéey pôle urbain bi pôle urbain bi jël na lépp ñëw na ba su sunu palanteer yi léegi nag en revanche dañoo bëgg bët Sénégal gii ñu jox ko ñi ko yellool ñi ko yellool mooy baadoole yi daan bay fii amuñu fenn fu ñu aw ñoo ko yellool mais borom barke yi ñuy jox suuf si ñu jël seeni milliards di ko lii loolu mënatuñu kaa moo tax ñu jox en tant que jigéen ñëw si njotaay bi pour wax parce que lii neexunu tey neexunu ëllëg ku daan taxaw bët Sénégal rek boo fi taxawee tey sa xol bi jeex na loolu mënatuñu ko si wax tey léegi nag ñoo ngi interpellé le président de la république président Macky Sall moom la ñuy liggéeyal de man mii di taxaw moom laay liggéeyal dama bëggoon nag mu gestu paysan yi nekk jam ñaajo xam ne fii lañ daan fori seen wër seen wërsëg mu jàppale ñu jàppale jigéen ñi déedéet maa liggéey gi nga gis ni jigéen ju fa taxaw daan nga bay hectare kànja ñu yóbbu ko jaay ka dundal seen njaboot fi mu nekk kenn amatul loo def ku xëy yaa ngi toog loolu nag doon na lu nu metti tey nu ñëw taxaw pour wax que Sénégal gépp dégg ko monde bi yëpp dégg parce que lii ku nekk xam na ni américains yi fii lañ daan ñëw bay fi lu ne ñëpp di fi liggéey am sunu teraanga mais léegi loolu amatul mais nañ ko jox ñi ko yellool ñu bay ko. Euh, te ñoo nekk ci période bo xamné yëngu yi dañoo bëri té ñu am lo xamné dañ koy wara jëttal suñu kilifa euh wax nañ ko légui dañ bëgg moy li nga gis fi di muy sphère sphère ministériel bi ministre agriculture mo fi ne dañu bëgg président mu jël tool bi ak li wër tool bi ci ñaari pôle yi mu def ko pôle agricole té mu loger ko mu def ko ci biir ministère agriculture parce que mbéykat dañ koy dénk ka yore mbéy ma que ñu mun a continuer di béy lu ñuy dundee di dundee lu ñuy béy jigéen ñi wax nañ ko léegi fii boo demee jam ñaajo bu njëkk ba bët Sénégal moo doon béy lépp lu doon jaay comme fruit ci biir jam ñaajo waaye léegi yeneen bitim réew yeneen fruit la ñuy jëlee bitim réew mu remplacer ñun lu doon war a te Sénégal am na lépp bu dee banaana demal fédération des producteurs de euh, banane mun nañu béy lu lu kii léegi ñu ngi béy sax banane bio Hein ci direction euh, Mamadou Omar euh, Sall donc Sénégal mun na vraiment góorgóorlu fexe ba ñu béy lu ñuy dundee di dundé lu ñuy béy ba suñu xalé yi nekk té euh périmètre bër Sénégal amna investissement 1 milliard foo dem tiwo mu nga fa boo ubbee ndox ñëw am nañu <clears throat> forage mhm. ay forage yoo xam ne ñu ñoo ko moomoon mhm. fan yi ñu indi ndox mi ak li nga xam ne gouvernement bi def na ko yëpp ci investissement pour ndox ndoxi Caaroy bi ak ndoxi Bertilaan bi ñu indi ndox bi mu romb tool bi dem euh, euh, euh, Pout di ko joxe yeneen béykat pour que fii ñu continuer di ko def ciment mhm. ciment bi daal la ñu ñu arrêté te suñu tool ñu delloo ñu ñu delloo ñu ko ci kilifteef ministre agriculture comme yàlla indi na ko ba mu nekk nii ñu ngi taxaw nii ci biir tool bi di di gis euh, euh, bureau ministre man Mbaye Sow laa tudd nekk ancien paysan ci bët euh, ci seen prime nekk fi itam RSPM nekkoon fi responsable ci tool bi tool bi tey ku ku nekkoon tey ci bët nga ñëw fii fekk tool bi mel ni mu mel soxul jeex bi ndaxte doomu aadama yi fi daan liggéey famille euh, amoon nañu juróom benn téeméeri famille euh, tool ak ak ak ak ñaar ak lu topp tool bu nekk ku nekk ku nekk amoon na juróomi nit yoo boot loolu mbooloo la woon ay junni junni nit ñoo fi doon liggéey di fi tedd kon boog su demee tey ji ba doomu aadama yooyu yëpp kenn ñëwutu fi ñu ne ndox la léegi ñu dem bay indi ndox war nañoo mën a delloo doomu aadama war nañu delloo tool bi ministre ministre bi delloo ko béykat parce que amatuñu fenn fu ñu béy fu ñu war a béy rek def nañu ko kër fii la ñuy des fii nag léegi bu ñu ko jëlee jokk ko eh, ñeneen te ñun amatuñu fu ñu bay fan lañ jëm te li fii lifit lu ku fi sonn rek tool bi moo doxatu mais tool ba muy dox ñëpp amoon jàmm fii nit mosu fee wàcc ñëw fi liggéey ba wàcc ci yóbbu la lu mu deere ñaari junni sa sa kër kon boog bu lii dee ñu mel ne ñun tool bi yëpp ñu réglé rek ni ñuy defee pôle jam ñaajo bii nañ ñu defal fii pôle agricole tool dëkk yi nekkoon fii dëkk bu nekk ñëw fi di jël sa wërsëg xale yaa ngi fi xale yu liggéeyuñu li xale yi di dem ci mbëkk mi ñàkk liggéey rek te fii ku nekk man xale yëpp mën nañu fee liggéey parce que lu mat ñaari junni xale fu ñu fu ñu fu ñu mën a liggéey mbooloo la te fee liggéey kon moom nañu dimbali nañu président dimbali ñun ñii man mii di wax yow responsable affaire la parce que maa ngi ànd ak Baye Ass Baye Ass ngi ànd kon boog ñun lépp lu ñuy wax dañ koy wax ci intérêt Macky Sall nañ Macky Sall gestu waa réew waa zone bi zone bi amuñu lu dul fii ñu ngi leen sant di leen ndax euh, mandari bi nga fiy gis ñu koy wax clémentine bi fi ñor fii moo ëpp solo si nit moo ëpp njëriñ si nit ndax sëñ Saliou daan na wax naan waxtu wu nekk de dundee la ci gën mooy dundee lay ñor ci waxtoom te bët waxtu wu ne mën am xaalam mën am mandarin mën am euh, ñebbe mën am haricot mën am lu ne te li siy jugee di dellu si biir nit ñi moo ëpp doole fu fu fuuf fuuf ak li siy jugee di di jëm si baykat yi nga xam ne ñoo koy bay waxuma laak euh, taxi yi nga xam ne mooy jëmaat ci état bi ñëpp bokk ni ko sëñ Omar waxee konko ndox am na fi ak suuf ak kàttan goo xam ne pas-pas ak bëgg-bëgg ndax ñetti bëgg-bëgg am bu mag yi bëggee nit ñi bëgg te te te te te ñeneen ñi nga xam ne bëgg ñoo si des bëgguñu ko kon day yàqu ñoom daal na xool fi mu tagee ndax it euh, tabax nañ ko tabax fa mu war a tabax waaye ay tool moom nañ ko bàyyi ak baykat yi rek loolu daal ñu ngi koy ñaan bu ñu si mënee dimbali moo ñu moo ñu si gënal ndax euh, Serigne Salim Mbacké kat mille hectares yee mu defoon euh, xelkom du du ko jëloon rek bazarde ko noonu ndax at mu jot la si daan génnee Sonacos daan na ko yëg réew mi daan na ko yëg bitim réew daan na ko yëg buñ ñu mayee nag suñu bàyyee ñu suñu tool yi bopp yi waxuma la at waxuma la émergent waaye lii fiy jóge ay Maroc ak bitim réew fu ne eh, dina fi ñor lu ko ëpp